bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi ñuy siiwar ci sunu seen YouTube Modou Moustapha Guèye ak di ñu ci sunu Facebook Guèye historien islamique ak Guèye Bachir Riche ak conti Facebook yi ñu yor yëpp. noo ngi fii ci Italie ci région bu ñuy wax euh, Toscana ci dëkk bu ñuy wax Piombino de Maritima fas yéene fee mottali li nga xam ne mooy. sunu action campagne bi nga xam ne jël nañ ko te di ko jaarale ci ay chronique ngir sensibilisé nit ñi mën leen a wax suñu position fan lañ ci toll. tey nag ñu toll ci cappaandaw gi bëgg a def njàngat bu tuuti rek ci li nga xam ne jot nañ ko passé ñu jéem ko résumé ci lu gàtt ak image bu ngeen di jàkkaarloo ak noon di wax na ñu ngi ci campagne électorale pour waajal présidentielle 2019 ñun nag ñu ànd ceeg sunu secrétaire général. pàtt réew mi Idrissa Seck di wax ne ñun ñii wala man mii jàkkaarloog yéen di wax ak yéen maa daan jàkkaarloog yéen di waxtaan ak yéen ci mbirum diine ak istuwaaru jaar-jaaru mag ñi loola ba fi mu ne nag maa nga ca duma ko bàyyi mukk waaye pour leeral ñi nga xam ne ñoo ñu doon déglu ñu dem ba benn jamu jëmmi jamono am ci ñu bari ñoo xam ne dañuy wax ne yow comme da nga daan yëngu ci diine yamal ci diine ji képp mais diine ak jamono lañ wax diine ak jamono te diine mën naa ànd ak jamono ñu am ci rek ay référence yoo xam ne si ñu ngi référé wu ci ñoom ka jiitu mooy sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñëpp xam nañ ne li taxawal parti démocratique Sénégal ca moom la ngir bëggoon a sauver l'islam ka ca topp mooy Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ndax gis nañ bari nañ ñuy wax di tudd politique naan àndoon na kii wala àndoon na kee moom it position ba mu taxawee woon ci jamono joojee mooy intérêt islam ndax gis ngeen ni mu ko daan waxee am na ñuy laaj ci réew mi ñaara ngi ñëw ci man bu ñëwee ku ci njëkk tudd sëñ Touba ci man rek ma ànd ak moom. ka njëkk ñëw ba mu ñëwee wax na fa waxi boppam ba jóge fa sëñ ba teral ko yëkkati xaalis jox ko mu nangu ko jël toog na fa ba jóge fa ci biir programme ba tudd ci sëñ Touba ki nga xam ne mooy ki ñuy wax Senghor. pour leeral ko nit ñi ñu dégg ko li tax sëñ Fallou àndoon ak moom lislaam la ba mu ñëwee wax ak moom mu yëkkati alal jox ko mu ne ko alal ji kat du ma ko laal ndax France la ëppee te su ma ñoroon ma wut ko xam naa ne yow loo ñaan yàlla nangu ko kon nag li ma bëgg mooy nga ñaanal ma ma jot ci réew mi ba man laa jàppale ci liggéey sëñ Touba sëriñ Fallou ne ma ngoog loolu yi dong laa doon xaar kon kookoo jar a jàppale ki nga xam ne mooy Abdou Diouf it gis ngeen ne tombé na fekk doomi sëñ Touba te kooko moom xam ngeen ne du waxantu ba mu demee ba wax ne képp ku ko moy la saw kat war nga sëñ Touba anam mu lan la ban bilaa la teg wax na ka fi njëkkam ka fi Abdou Diouf wutu lam fi def wax kii lam fi wutu te lii dubalte ko fuuf mu wax ne nag def na ko te mu sufee ñëw di fi immigré dara kon nag loolu bu dee gor ñun ñu ko defal ñoo ñoo ko sañ a wax kon moom intérêt l'islam intérêt sëñ Touba moo taxoon mu jàpp ci Cheikh Ahmad Tidiane Al Maktoum ñëpp xam nañ ne activité am yëpp ci lu doxal Sénégal ci la ko doon def politique bu ngeen ko a dégg mu di ci yëngu ci acti ci ci acti boobu la ko tegoon ki nga xam ne mooy maam Abdou Ciss Dabakh ñëpp xam nañ ne fu masaan yëkkati kàddoom ci jamonoy euh, élection wala jamonoy attentat bu mën a doon la ca l'islam digle rek loolu la ci yëkkati kàddoo archive yaa ngi fi ñi ngi ñi ngi téye ay archive am ba nëgë fu jamono ji demee ba nëx rek ñu daal di koy génnewaat kon man ñooñu ñoom ci laay référé woo nga xam ne dañ doon ay sëriñ doon boroomi xam-xam ba pare réew mi ñor leen am réew na képp ku ca bokk dafa laa war a ñor doo jël benn pàcc bàyyi benn pàcc da lay boole ñaar yëpp muy diine ak jamono nun ci suñu wàllu bopp foofu lañ teg suñu tànk ba tax na nag kenn ku nekk am nga droit xool ku la neex nga tànn ko waaye na ko tànn nag ci li nga xam ne dafay amal réew mi intérêt man nag ki ma tànn mooy ki nga xam ne mooy Idrissa Seck mi jiite parti réew mi yàgg ci politique lool jege diine lool ragal yàlla lool mën a liggéey lool parcours am nekk lu rafet ndax parcours am doy na sëkk rek ju ne doomi Ablaye Wade la ci politique ñeent fukki at nga ànd ak nit muy metti nga ànd ak moom ba nii ab lay Wade jëlee pouvoir bi toroxal nañ leen gagné nañ ay élection ba tey ñu xañ leen ko ab Ablaye Wade ci kaso bi moo ak Ablaye Wade jafe-jafe Ablaye Wade moo ak Ablaye Wade Ablaye Wade jàngal ko mësta daw mësta daay mësta yokkat alalam mësta daw mësta day mësta yokkat kon dama bëgg képp koy wax ci Idrissa nga jël parcours am ci politique bi mu defee noonu ba Ablaye Wade jël nguur gi 2012 mu ànd ak moom Ablaye Wade fal na ko fi directeur de cabinet Ablaye Wade fal na ko fi premier ministre waaye comme muñ googu def na ko nga xam ne mosul trahir Ablaye Wade mosut a woro tañ daa ko woo ci wet gu ne Ablaye Idrissa waxal na ko boppam loola xam gi xam alxuraan dong moo ko def gis nga alxuraan boo ko xasee xam jàng ko te jàngantu woo ko xam la yàlla wax wallaahi alxasim doo mën a def lu ñaaw ndax inna akramakum xindallaahi ataxeekum moo tax alxuraan ñuy sensibiliser nit ñi di ko jàngal seeni doom ndax bu jëkkee ci bopp rek doo def lu ñaaw kooku nekk ca loola bi mu nekkee premier ministre war leen gouvernement bi ba mu daj ya fi jaar ak bii fi nekk ñi ci nekk ay ministre ñu takkal leen ay ndombay tànk ak bëy yi nga xam ne ay transformant lañ dañ leen di wutal ñax mu naat defal leen ko ci ab gàmbu yeew leen ci ñu tiim ko di lekk wa duutuñu tal seen seen bit kenn ku ci defar sa dëkk ba nga cosaanoo amul ñu dëkk Saalum taman ma dëkk Saalum amul état bu ne liggéey na ci moyen bu ne am nañ ko waaye lu dul kër gañ fa tabax ñoru leen sax moo dem cees soppi xar kanamu cees ci bi ko yàlla di jox ndombal tànk moo tax bi mu ŋànkee Thiès ba fii ñu toll nit mosu ko fa gañe daana wax na bés bu ma gañee Thiès ma bàyyi politique léegi nag ndombal tànk yëpp jaar na ci ah def na ci jëfin wu rafet kenn mosu koo jàpp ci dara donte accusé nañ ko waaye accusation boo gis verdict baa ci am njëriñ dem nañ bañ satal ko defal ko noolu lieu kenn mënu ci dara dara dara lu waay mën a wax it fi koy bàyyi. bi nga xamee ne yàlla dogal na ñuy xëccoo 2012 muy def campagne comme ni muy def yàlla dogal na nee na képp ku dem deuxième tour yow lay àndal ku dem deuxième tour yow lay àndal bi bees maroom yi demee deuxième tour mu daal di lëkkaloo moom àndak moom. waaye fi nga xamee ne am na personnalité am na dignité te ku xam état la ña nga xam ne loola nekkul ci ñoom xamuñu ci alxuraan ragaluñu yàlla. maanaam dundaleen ñor ak dundal seenu askan waaye réew mi ñoru leen dañoo dem ñoom ñu yeew leen ci ab gétt ñu nekk foofa lu bon lu nekk ñu daganal ko ñu teg leen ci place di leen signaloo ak di leen dee signaloo loola Idrissa moom dafa daa di tekki ndombal tànkam wax na moom benn bokk tas yaakaar gi moom da ciy daal di jógee ndax booba noonu laa ko mën a tuddee daal ciy génn ba set ci wecc ber yëfi boppam tey moo ko may popularité bi mu am ndëgg sërëx gu nekk nag def nañ ko am na ci sax ña nga dëkk Touba di ko xeexee ak sëñ tubaa sëñ tubaa kenn moomu ko sëñ tubaa sëñ tubaam tout le monde ñëpp a ko bokk ndax nee na simaamul waraxas la da lay fi yeddi kenn mënu cee xatal kenn kenn ku ne mën ngaa fexe ba jariñu ci waaye sama morom du ci bokk wala ngay appré ngay taxaw di apprécier naan kii murit la kii du murit yooyu amul importance réew mi xëccoowuñ ko ci ay affaire religieux kii lii la kële lële la tax na nag fenn fu nekk wax ju ñaaw nga fi jëw waaye lii waykat bi naan isa arada allahu loolu moo nar a daal bari na ko yëkkati kàddu ngir xaalis te toogoon na nem ñu jox la xaalis nga bitër ñi sa famille bitër ñi sa ngor di jéem a yàqal nit far yàqal sa bopp bu yàlla na naree yëkkati nit def jaarale ko ci ay jox ko ay ngëneel ci làmmiñu ko ñaan la koy jaarale kon yéen ñiy wax arrêté leen murid yi joxe nañ seen bopp jullit yi joxe nañ seen bopp te duñ ci deltu gannaaw ñii wax it di def ay uujoo di sànni fenn fu nekk ñu defa wax naan kii Tijaan la kii kii murid la Tijaan ak murid amuñu problème tiijaan ak murit ba leen yàlla di tànn wutal leen ay njiit nam tànne woon lislaam jiital ci Seydina Muhammad noone la tànne yat ñooñu wutal leen ay njiit ba mu leen di tànnit ci lislaam li leen tànn ngir bëgguñu ñu yaatal muy Cheikh Ahmad Tidiane Serif ak sëriñ Touba mi nga xam ne moo jiite yoonu murit mosu ñoo am problème te duñ am problème kenn mosu leen a dégg kon nag ku nekk ci parti yooyu benn yëkkati sa kaddu ngir bëgg leen a saboté Moustapha Guèye dana la wax ne la Maodo ak Serigne Touba ñoo bokk ndey baay dama koy leeral mu leer ngeen jàkkaarloo man damaa public bokk ci tarixab tijaan te doo ca mu xaddam doo ca doom doo ca porte parole loola la nga war a def mooy fexeel ba na nga mën a amee ca euh, la nga xamante ni sii mooy tarixa ba ndam la nga cee sàkku loola waaye leneen loo def lu dul contre loolu rek da am problème sëriñ Tuubaa bokk nag maam alaaji Malik ci ñetti maam maam maaram lañ bokk te mooy àddinaanu képp ku sant Mbàkke maam maaram moom i moo yoroon soxna suñuy wax faramata sekk gannaaw ba mu demee ca tabbi lañ ca maam Masamba Thiam ba jàng fa ba ñëw ñànk Mbàkke sa ñànk ba sañc ko ba takk soxna suñuy wax Farimata Seck ci la am Ahmadou Farimata ak Thierno Farimata Ahmadou Farimata ak Thierno Farimata ñoo bokk ndey ak baay Thierno Farimata moo jur Xari Mbàkke ak Mati Mbàkke Xari Mbàkke moo jur Ngañ Ñang Ngañ Ñang moo jur Safiyatu Ñang Safiyatu ñan moo jur maam Abdou Assis Dabaax sañ Abib ak sëñ Mansour mi jur sëñ bay mii ñu tudde sëñ Babacar si tam nekk ci xilaafa gi Ceerno Farimata ba tey moo jur Mati Mbàkke Mati Mbàkke moo jur maam Ousmane si maam Ousmane si moo jur Alaaji Malik kon nag naan maam Alaaji Malik maam Ousmane si Mati Mbàkke Ceerno Farimata maam Maram nga dellu na maam Abdou Safiyatu Ñang Ngaj Ñang maam Maram nga neeti maam Maram maam Balla Aysa maam Balla Aysa moom yi moo jur sëñ Mor Anta Sali ñu Mor Anta Sali moo jur sëñ Touba ak ñam bokkal kon menn maama nga nga dellu ci Maane ak Bona ak ku ñuy wax Batóor nga xam ne ñoo bokk nday ak baay Batóor moo jur ku ñuy wax Ngóor Saane daan jóge Jolof di ñëw ci kër sëñ Tuubaa gi di wasifa ci njëréem wasifa bi nga xam ne moom la ñuy def ca Tiwaawan te mos a déranger sëñ Tuubaa comme sëñ Tuubaa loolu mosu ko déranger nag benn murit bu la mbirum Tijaan déranger ndax lépp ci jaamu yàlla la jëm mbalaa ne wasifa yi ñuy def ak yëpp di ko lal jaamukaay yàlla la maane moomee buuna moomee moo jur tafsir buuna mi jur maam Ousmane si mi jur El Hadj moo jur maam Aysa mi jur maam Balla maam Balla jur sëñ Mor Anta Sali mi jur sëñ kon foofu kenn mënu leen a xàjjale ñaari maama ngoog nga ñëw ci maxtaarum dam mi nga xam ne càllala moo dem ba ci xasan mi nga xam ne mooy doomi Seydina Ali ak Fatimatu bintu Sahra mi nga xam ne mooy doomi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maxtaarum ndam moo jur Demba Binta Demba Binta moo yoroon soxna suñuy wax Seneba Gay ba Gay moom yi mu yoroon nag ki la am ba Demba Seneba ak Njaay Demba Seneba Njaay Demba Seneba maami Alaaji Malik njug mbërgu Demba Seneba maami Sëriñ Tuubaa Njaay Demba Seneba moo yoroon jigéenu maam Masamba Caam muy Kumba Caam am ci aram loo mi jur Daraman mi jur Bakary mi jur euh, Fawad Wele mi jur El Hadj Malick waaye Ndiaye Demba Sanaba moom itam maam El Hadj Malick moom mbërgu Demba Sanaba bokk ndey ak baay mbërgu Demba Sanaba moo jur jur Daam Buri Sàmm mi jur soxna Saliloo mi jur soxna Anta Kan mi jur sëñ Mor ñetti maama ngo lislaam door a ñëw ñu bokk ko kon li sëñ Sidi Muxtaar doon wax naan mayatuma murit buy wax ci tijaan mayatuma tijaan buy wax ci murit noonu foofa lañ toll dañ koo gëstu ko ba xam ne ñi ay lépp lañ sax ñi ci bokk waruñoo ngàññante adversaire du diggante murit ak tijaan kon ki jël sa ujoo toog ci àll bi di wax ci turu tijaan te amuloo ci ndigal laa tafxalu say an bi xayri isnin fal isnu sartun fi xabuli sax ni looy wax dafa da ko war a nekk xam ko maîtriser ko Idrissa Seck nag li nga xam ne man moom laa lay dénk nga xam ne fi lay la na nga moytu ñi nga xam ne kaar bu taxaw ñu dugg bu kaar ba taxawee ñu wàcc yéegaat bañ amee indépendance bu tey am na paa yu yoo xam ne nguur gu ñëw ñu langaa biitu amaluñ seenu askan njariñ dëkk bañ dëkk sax amaluñ leen njariñ amuñu yërmande amuñu xol bu baax jayaate ak yàqalante képp moo leen ñor kon boo dikkee ñooñu nag leen éviter am nañu tàmbali di rëcc nag ay maire yoo xam ne ci ñi ngi woon ci Benno Tass Yaakaar liggéey ci juróom-ñaari at te bañ fay dugg lii ñu wax xamoon nañ ko kon naa fekkal leen ñor ak ak ak ak Sénégal gi nga xam ne ñoru leen kon ñooñu tamit nang leen sóoraale ku ci ñëwit say loxo takk deret na nga ko wax ne dem raxasu ba set door a ñëw mën a naan ci soow mi waaye Sénégal du lu nuy pàccoo du lu nuy séddoo ñooñu amaluñ réew mi njariñ te dañuy yàq askan wi baaxuñu ci éducation ndax magum jëmm day taxaw wax lu rëy giñ ci yàlla mu wóor na ñàkk xam alxuraan ñàkk ragal yàlla moo tax lii mu wax mu di ko def ndax loolu dong la ñu rawee tubaab waaye boo xamee yàlla ragal yàlla incha allah bu soobi suñu borom yenn wax yi doo ko wax ndax da nga ci sóoraale na ëllëg da nga dajeeg suñu borom ñoom nag dem nañ ba gëmatun yàlla kon kooku taxaw fii ma nekk du ma fi jóge wax ne bu ñu doon jël paaka di rendi teg sama baat du ma fi jóge daa de wax ne képp ko transfumé dañ laa war a rendi nga dem ba yor parti toog ñaari at commencé di cokkaas diw sama xarit laa ak président bi sama nangam la ñu koy xëy xëy nga daal di war nit ñi gannaaw dem dugg ca bloqué sa compte Facebook kenn mënatu laa jot ñu koy benn benn di ko benn bi nga xam ne ñi ci gënoon a rëy aw làmmiñ ñëpp fi na tey dem nañ fekk nguur gi ñooñu it fi ne ñu ngay waaj desit wee des état bi nag nga xam ne féeg la 24 février moom la ñuy xaar loolaa moo moo leen fa bàyyi waaye am na ci ñu seeni ba nga nga tàmbalee di yox ndax ñi ngi weerante nekk ci biir Touba di xastante ke saagante kenn ku nekk naan ba muy door man la woon kon kenn waruñ cee fekk dañu gañe kon mbir mi du mbirum euh, réew mi mbirum intral kon ñooñu nag leen di sóoraale seeni loxo dafa takk deret loxo bu takkee deret nag mënta bokk nit aw ñam kon nañ ko seppi san beneen bi ci deset mooy ñi nga xam ne wax nañ ne ay nit lañ yoo bokk ci këri nga xam ne ñoom i tamit dara ñuuru leen du ñëpp am na ci ñooñ dañuy ñëw ne la maa la jàppale woon ak maa la boole woon ak sëñ diw mu ñaanal ak nga defe ne da nga yëkkati ay ambuloo ak yëkkati projet di leen jox kooku boo ko defee askan wi daal taxaw daal lay noonoo te buñ la noonoo rek dañuy daal di sotoo buñ sotoo dañ lay gañe te buñ la gañee duutoo duutoo dem kon lii régime bii def aw yoon la la teg def na lu baax ndax teg na la ci aw yoon woo xam si bu ëllëgee na nga mën a xippi say bët ndax nguur day jay nit alxuraan nag boo ko jëngul mooy tax ñaawteef yi am di am tiim caisse noire tiim ko sañcee jëfandikoo di jox say doom def say gorom milliardaire def say rakk milliardaire def sa famille milliardaire askan wi laatu amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan amuñu lu ñu fajo amuñu sécurité sa lépp di dox loolu boo ko defee tamit tôt tard fii ngay mujj kilifay diine it na nga leen warmal ndax amuñu lu dul kilifay diine yi ñoo téye Sénégal bu du woon Sénégal Sénégalais yi yës ci àddina bi ndax fi ne ñii di wax naan ay citoyen sempal lañ wax nañ ko ba pare nag jëfe ko jëfe gi mooy dañoo libéré askan wi ñuy saaga kilifa yi di def lu leen neex ñu di leen bàyyi ak ñu nekk ci seen parti di saaga kilifa ak diine ñëpp dégg ñu jël la yokk la say privilège loolu it ko bàyyi xel ñooñu it bu ndawee jëm ci ñoom say bo nga artu mënuñu laa andil dara lu dul andil lay noon ay noonu lañ lay andil waaye duñu la andil ay soppee ndax ñooñu transhumant ñëpp oto ba nu duggoon ba wàcc ñoom képp ñoo wàcc client yaa ngi ci des di wàcc di xool nit ñi kenn moomu leen mën lu leen a ànd ak mbooloo ànd ak ñu yor mbooloo taxul nga am mbooloo mi da ngay ànd ak nit ñi ci lañ bëgg nii ñuy def nag jël ab ceeb di teg ci oto dugg ci biir Touba yi nga xam ne monsieur sufa campagne monsieur sufa politique léegi politique dem na ba xar kanamam ci biir Touba moo gàcce ndakaaruñoo ñoo ak gàcce Thiès loolu li ko defit mooy jikko ju yàqu ak ñàkk ragal yàlla nit bu jàngul mënta xam dara te am dañoo defe ne nasaraan la te nasaraan boobu yi lañ lay jàngal nooy sàcce ak boo sàccee nit ko xam jàngal la nooy naxe ak boo naxee bu ko kenn xam loola nag alxuraan dong ñu ci mën a génne kon nun ñii sànni suñu kàtt nañ tànn ki gën a jege lislaam ndax président bu ne tiitaroo nañ ko fi waaye président bu lislaam moom tiitaroo guñ ko fi président bu lislaam tiitaroo guñ ko fi président bu toog ci cérémonie officielle jël bayati sëñ Tuubaa yi raditu anil mawla taala lasi rabba waa raditu anil mawla taala lasi rabba fu aadi wax na nii wakrim bihi rabba nga dem na rajawto xanil mawla ila tuba wa xudni wa sallimi ab président de la république toog ci cérémonie jël bayitu suñ Tuubaa di ko yàq kooku xam nga ne dëkk ba ñoru ko kilifay diine yi ñoru moo tax mu libéré askan wi ñu di ko saaga muy confirmer la ma waxoon na ay citoyen simple nañ kon ñooñu d'abord na leen yërëm na nga leen ormaal ndax yàlla ormaal na leen te ku leen ormaal ku nekk rek suñu borom sa sa sa orma sa sa orma ci ñoom lay jógee kon ñooñu yëpp maa ngi lay dénk nañ leen bàyyi xel bi ci des mooy baykat baykat yi sonn nañ ba ñu gëjee am traite bu bu dox kenn xamul kañ la sa gerte ñetti weer demar di am sew jiwu nga jël jiwu wi dool ci def ci suuf nawet ba gant wala nawet ba la ca baax nga jël ko not ko foyoo leen seen seen xaalis ñu am ay dëj am ay ngénte am ay xew defuñu ko ñu toog ci kaw télé bi naan lépp baax na loolu dama ne du yoon jox leen aw jiw jox leen engrais tey di leen nemmiku fi may terminer nag mooy RTS mooy ki la mën a dimbali ci sab liggéey nii ko ñii di defee kooku da leen di daaneel ndax da lay nëbbul bëgg-bëgg nit ñi danga koy bàyyi jox ko liberté total ministre boo ci nattalati budget mu mën a dem fa mu nekk nga bàyyi RTS mu xool bu xoolee ba gis ne lii nga joxoon kii def na ko loola dana la noppal waaye bu doxee diggantee ak loola amaana nit ñi danañ la bañ te doo ko ndax ñi ñëw ci yow naan la baax na baax na seen poche leen fa bàyyi. kon nag RTS da nga koy libéré ñu bokk ci réew mi di ci wax ngay mën a xam fi soxla nit ñi toll. nga wutut commission boo xam ne moo lay toppal ñi nga xam ne joxal nga leen budget te nanguwuñoo toppatoo askan wi ñu man lay wax dëgg nga xam fi ngay teg sa tànk kon man foofu lay taxawandi maa ngi lay jox dig dajee nag incha allah après le 24 bu yàlla dogalee nga jël euh, euh, euh, nguur gi su ko defee ñu mën a daal di continuer waxtaan waxtaan kon train baa ngi nii ñëw na taxaw na maa ngi waaj dem asalaamaaleykum wa rahmatullah